asalaamaaleykum mbokk yi ñu am kontante ak mbégte nekk ngeen fii tey nga xam ne fii ngeen nga xam ne mooy marché Petersen si gare bi nga xam ne mooy arrivée ak depart bi nga xam ne mooy BRT suñu BRT bu bees bi nga xam ne niki tey la commencé door euh, passage yi comme ni ngeen ko gisee sama ginnaaw nii gis ngeen ne nit yaa ngi wàcc ñii di yéegaat loolu di wane ne tey nag euh, officiellement euh, lii di BRT suñu BRT door na tey li nga xam ne mooy liggéeyam ci noonu nag tey ma leen di fàttali rek ne depuis euh, mi février la ñuy xamaloon ne tey berte bi dina tàmbale wante niki tey la tàmbale officiellement ginnaaw bi nga xam ne boobu ak léegi euh, le 14 janvier ak léegi la ko la njiitum réew mi di sal Sall inauguré woon wante boobu ak léegi ñoo ngi ci phase test léegi def na lu toll ci 9 mois euh, gars yi ñoo ngi dawal bus yi mais tey nag officiellement clients yaa ngi clients ngi ñoo ngi dugg di génn di wàcc nag ñu fas nag dugg ci biir. Euh, laajte askan bi tey nan lañ gisee li nga xam ne mooy BRT bi gis ngeen ko comme li ngeen ko gisee nii berte baa ngi nii di dem euh, dafa fa seen dem nii gaare fële fi nga xam ne mooy départ bi lii mooy gaar yi nga xam ne dañuy départ euh, BRT yi nga xam ne dañuy départ fi nga xam ne mooy fii di Petersen fa seen jëm fi nga xam ne moo di ba Géejawaay ci noonu li nga xam ne moo di Lutte TV 23 euh, stations la berte bi am wante fu mu nekk nii 14 so kott mooy li nga xam ne 14 stations mooy li nga xam ne moo disponible gum yeneen ñi ñu maanam opération guñ nekkuñu en phase d'opération pour mën a ay clients mën faa wàcc wala ay clients mën faa duggee wante fii ñu nekk nii nga xam ne mooy Petersen nemmeeku nañ fi ne gis ngeen rang bi lu mu xawee wàññeeku na tuuti sax mais sànq rek xaw naa takku trop ndax nit yi boobu ba léegi gis nañ ne ñu bëri léegi BRT bi la ñuy jël mën a seen kër yoon bi wala ñu egg ba fële nga xam ne moo di euh, ca géejawaay am na itam ñoo xam ne dañuy jóge ci yeneen gaar yi nga xam ne ci 14 yi nga xam ne lim naa ko léegi war a ñëw fii ci Petersen gis nañ léegi ngay gis léegi ngay gis bisu BRT yi di wàcc ci noonu nag dam leen di di ñu fa yéene dugg taatan kaddu askan bi xamal ñi wax ñu lan mooy euh, seen yëg-yëg ci démarrage bi ak nan lañ gisee li nga xam ne mooy BRT bi gon euh, bokk ma bàyyi leen ma ma dugg ci biir léegi jox leen suñu Sénégalais askan bi nan lañ gisee BRT bi ak naka lañ ko seetloo parce que BRT bi comme ni ngeen ko xamee rek naam mën naa am ay ay impact positif bu bëree bëree bëree bëri ci ci askan wi parce que tey euh, lu toll ci trois à 6 minutes yoo def euh, dina am benn biis boo xam ne taxaw na ngir fosee ne soit muy wàcc ay nit wala soit muy muy muy yëpp ay nit ngir yóbbu leen ci nga xam ne foofu lañ jëm ci noonu nag dañuy dugg ci biir rek fas yéene taataan li nga xam ne mooy kaddu euh, li nga xam ne mooy passager yi. dañ koy rafetlu ba d' abord ba pare parce que euh, euh, c' est confortable parce que suba si ba may ñëw moom laa jël te je vois que dafa gaaw te embouteillage loolu loolu tardé dafa yomb vraiment c' est confortable te les bus sont climatisés vraiment c' est ça. opportunité bu baax la parce que le président sortant bu fa nekkoon bu fa nekkoon vraiment euh, liggéey na liggéey na liggéey bu rafet. wala yoo xam ne liggéey boo xam ne li xam nga dafa ñëpp lu ñëpp di gis vraiment dafa liggéey bu rafet vraiment man am personnellement personnellement di ko gërëm di ko sant vraiment li mu fi bàyyi moom vraiment c'est ça quoi parce que ñi fi nekk tamit dinañ ñaan tam ñu con def état continuité la ñu def leneen lu raw Macky Sall lu mu fi def. parcelle laa jógee. waaw 500 laa waaw bon xam nga euh, affaire yi euh, si man euh, c'est un peu adéquat. par rapport les autres parce que doo xam ku nekk sa poche nga yore doo xam man lu ma enc téeméer bu ma enc est-ce que enc na keneen parce que loolu tam passe bi tam loolu tam da nga ko war a xoolaat parce que digg naa tam client yi bëri di wax affaire passe dafa cher wala au moins seetlu ko 300 francs parce que ba fi ñu def ko 300 ñeneen ñeneen 200 bon wa affaire waxtaan ba jubóo la rek la parce que ñëpp ay Sénégal lañu benn lañu quoi. bon bi euh, oto yi moo gën a yomb mais oto yi moo gën a métti fii gaa seer na mais bii moo gën a yomb parce que bii bii c'est vite fait quoi. à moins de 15 minutes je suis à Dakar man moo ma gënal quoi li téeméer ñëw moins de 15 minutes ma ñëw Dakar ma je suis yow tey nga jóge léegi nga wàcc BRT bi nan ko ko gisee. léegi nii laa si wàcc neex na trop climatisé na sedd na parcelle laa jógee nii léegi léegi fay 500 yomb na neex na nga jël BRT bi moo la gën a léegi nga jël li ngay xam ne mooy car. fukk moo gënal fuuf. li affaire noble quoi. ko ah. noble. noble bi dafa noble wala moo tax nga jël ko wala da ngaa yàkkamti. dafa noble ma yàkkamti. Ah, jërëjëf. BRT bi yaa koy jàkkaarloo. non non non bàyyi ma wax rek du ma jàkkaarloo moom bàyyi ma wax rek neex ba dee. BRT ah. bi daal neex na. fan nga jógee yow. maa ngi jógee Jacques Mbao mais dama def tour pour jël BRT bi ñam ko comme na ma ñamee woon euh, ba. terre bi. mais alhamdulilah macha allah ñu ngi ñaan yàlla yal na yal na fi yàgg. ñu ngi ñaanal ki nga xam ne moom moo fi jógee créé ko ba tax nit ñi mun cee dugg muy président Macky Sall Sall ngaari jaaraama lamtoor borom buuru gede ñu ngi ñaan ki nga xam ne moom mooy joomay fay suñu président mu jaar fi nga xamante ne fa la président bi jaaroon jaarale ko. mais yomb na mais yomb na peut-être yomb na ci man peut am ñoo xam ne yombul ci ñoom parce que ñëpp yemuñu mais man 500 euh, laa fay ba fii maa ngi jëlee géejawaay ba fii fay 500 peut-être. neex na macha allah neex na sax laay wax parce que am na kilim am na confortable na da ngay toog jël sa temps am climatisé am lépp daal loo xalaat ci biir BRT bi daal lépp ngi ci. da mën nga toog branché sa téléphone. mais mbaa du xat comme nu mu doon xatee. non non bii moom macha allah macha allah am na caméra surveillance am na lépp loo xalaat mu ngi ci biir BRT bi confortable na xatul da ngay toog nice mais daal yal na fi yàgg daal macha allah président Macky Sall. moo fi moo fi jaar nag. merci beaucoup voilà comme ni ngeen ko déggee rek yéen dégg ngeen gis yenn réaction yi nga xam ne à ah, chaud lañ ko jël ñi nga xam ne wàcce na ci li nga xam ne mooy BRT bi ñenn ñi ñoo ngi yéeg euh, ni ngeen koy gisee ni gis nga beneen baa ngi nii comme nu ma leen ko waxee rek 3 minutes voire à 6 minutes yu nekk dina am benn bu taxaw boo xam ne fas yéene naa yëpp ay clients wala chaque 3 minutes à 6 minutes di nga am boo xam ne day jëlee foofu ay clients wàccee leen fi nga xam ne foofu leen doon jëm gis nga comme ni ngay gisee bii moo ngi dem gis nga beneen baa ngi nii nga xam ne day dem ci gaar bi ñu taseeg euh, benn xale soxna si na nga def. Euh, tey nga jógee ci BRT BRT bi nga wàcce léegi euh, nan nga gisee BRT bi. ah c'est un plaisir parce que macha allah BRT bi euh, am na sécurité en plus biir gi neex na c'est climatisé donc ba pare boo wàccee xam nga fi ngay jaar yooyu noonu vraiment c'est un plaisir et que ñoo ngi ñaanal ñëpp ku ci nekk yéeg ci jàmm wàcc ci jàmm. voilà yow tey fan nga yéegee BRT bi. ah ah Guédiawaye. est-ce que nekkul yéen da ngeen a bëgg xool affaire nu mu demee rek. oui affaire bi. da ngeen naa a yéeg nii rek yéeg <laughs> non non non c'est vrai parce que nit moom bu sénégalais moo mel noonu bu lu bees bu ñëwee faaw ko nga découvrir ko xool ah. nu mu mel et ah. mais vraiment c'est un plaisir de partager avec euh, les sénégalais ci BRT bi vraiment kontaan nañu torop voilà merci kontaan naa bu baax a baax wala euh, mais kii sama confrère la kii kii suñu confrère la kii ngay gis nii suñu confrère la tey confrère tey nga jógee ci BRT bi nga jógee waaw ci laa jógee nii waaw mais vraiment noo gisee démarrage bi waaw démarrage moom macha allah jaar na yoon quoi parce que vraiment aussi foo daan am yenn temps bi tey boo xoolee presque da ngay am court temps maanaam dafay gaaw quoi. ok leen rek lañ ci remarqué nag aussi par rapport yenn arrêt yi. ba léegi fonctionné wul aussi. parce que c'est une remarque euh, sur parce que y bon voyageurs yoo xamante ni mënuñuy wàcc fi nga xamante ni foofu lañ bëgg a wàcc. loolu aussi benn manquement la boo xamante war nañ ko réparer quoi. waaw franchement. voilà d' ba léegi ñi xaarandi rek ñi nga xam ne ñoo ngi dem ci BRT papa na nga def. ñi gis léegi nga wàccee ci bi nga xam ne bu bees la tey la commencé mhm. bi tey. géejawaay. géejawaay bu fii euh, nan ko ko bon sant sant yàlla bu baax parce que soo xoolee lii nii avancement la bon di di conseiller ñëpp ñu fonk ko jàppee ko comme suñu yëf quoi di ko entretenir am discipline aussi xam nga tënku ci kàddu yi nga xam ne ñi fi teg ñoom lañ ñuy orientation yi ñuy jox parce programme bi jafewul pratiquement li ma gis c'est comme bi rek waa yii yëpp avancement la ñu sante ko yàlla. waaw ci biir euh, noo ko séentoo neex na non nickel nice cool. Ah, waaw waaw ci non non quoi heure bi moo tax mais su fekkee ni comme ci kanam ay 16 heures di wàcc est-ce demande bi mooy fort mais foofu tam discipline lay laaj rek su fekkoon Sénégal gépp dañu jóg bëgg ci dugutam su am suñu respecté ordre yi ñu am discipline ñëpp mën nañ dugg wàcc parce que navette la bii day ñëw beneen ñëw mais am nañ spécial benn ni mel pour li ni mel. loolu aussi brigade police boo xam ne spécial dañuy xool saytu li nga xam ne mooy. sécurité la waaw waaw loolu book bokk euh, Sénégal nañ ci bàyyi xel par rapport ak appel bi nga lancé. waaw parce que non non xam nga loolu yëpp dañuy prévoir parce que suñu wootee du ñi liggéey wàcc rek ñooy ñëw. am na ñeneen ñu am yeneen xalaat pour ñëw tenter leneen après suñ fekkee nag discipline fekk sécurité après lépp day cil ñooñ duñ mën a perturber liñ teg ñun d'accord jërëjëf waaw sant d'accord merci beaucoup voilà comme ni ngeen ko gisee rek waaye bii nag euh, xaar leen euh, lii ay élèves lañ sëñ grand na ngeen def waa dooleen leen doo leen wax BRT bi ngeen jëm ah mais mais mais sëñ bi na nga def. BRT bi nga jóge nii wala da ngay dugg. waa ci laa jógee léegi léegi. da dem wala da ngay doog a ñëw. non damay dem naa ba ñëw. dem nga ba ñëw yéeg nga ci kon yéeg naa ci nan nga ko sentir. en a cas confortable na daal confortable na te gaaw na parce que d'habitude boo doon jógee côté Liberté 6 pour dem Dakar da nga doon am da nga doon jël temps mais boo xoolee boo duggee ci biir déjà dañ lay wax temps bi nga war a jël pour yegg ci Dakar ay 27 minutes 25 minutes donc am na voilà te aussi confortable na boo dëggee da nga xam mais par rapport ak arrêt yi nga xam ne ñoom fonctionné gu ñu ba léegi. waaw est loolu nga jàpp ne aussi mën na indi inconvénient parce que mën naa jóge Liberté 6 ñëwee Sacré-Cœur da tëb yooyu noonu parce que pareegul wala am na ay travaux yu a des. loolu aussi noo ko gisee yow. waaw xam nga rek loo gis lépp mënul ñëw rek nekkandoor à la fois donc il faut que mu am yoo xam dañ koy bëgg di liggéeyaat au fil du temps au fur et à muy ni parce que am na yaakaar ne d'ici quelques quelques mois peut-être arrêt yooyu yëpp dina am mais pour le moment di nga gis ñoo xam ne dinañ jógee foo xam ne arrêt amu fa mais dañuy dox ba ci beneen arrêt bi mais dinañu ko jaral parce que gaaw na voilà comme man su ma dëkkee koñ boo xam ne arrêt amu fa daf may jaral ma dox ba ci beneen koñ ba ma jël arrêt ma jël ma jël ma jël bus bi ma ñëw parce que gaaw na am na rapidité. mbirum fay bi transport bi nan ko gisee. waaw aussi transport tamit mun nañ ne c'est acceptable quand même parce que ku yàgg di jógee fi may jógee di dem Dakar da nga doon fay 700 800 mais boo demee bañ naan la 500 voilà gërëm naa la waaw pour man daal mu ngi neex daal jërëjëf jërëjëf voilà merci beaucoup voilà comme ni ngeen ko gisee rek euh, gis ngeen nit yi sénégalais ñu bëri ñu ñu xam ne taataatagum nañ seen kàddu rek rafetlu nañ bu baax a baax li nga xam ne mooy euh, taxawaayu euh, liggéey bi nga xam ne njiitum réew mi di le président sortant Macky Sall def na ko fi rafetlu bu baax a baax ki nga xam ne moo fi nekk actuellement nii lancé li nga xam ne mooy lancement officiel du BRT bi commencé di liggéey ndax askan yi mën a dem ak dikk loolu li nga xam ne taataan nañ seen kàddu fi nga nekk nii nga xam ne ñoo ngi gaaru Petersen rafetlu nañ ko bu baax a baax loolu nag vraiment comme ni ngeen ko gisee rek am na ñoo xam ne aussi soulevé nañ par rapport ak li nga xam ne mooy discipline bi nga xam ne moom la suñu waay bi nga xam ne léegi nekk na fi yëkkati ko di ñaan askan bi nga xam ne ñoom dañuy jël berte bi ñu ànd ak discipline par rapport ak li nga xam ne moom la mooy euh, li nga xam ne mooy li li li nga xam ne moom la gouvernement bi teg Euh, ngir ñi ñoom ñu mu fas yéene ko respecté topp ko euh, jàpp ci parce que aska alalu ñëpp la ñi defar ko war cee jàpp rek comme ñëpp niñ ko war a defee comme ñoom niñ ko war a defee ak ñun it niñ ko war a defee ñun ñi nga xam ne ñooy askanu euh, Sénégal ci niki noonu voilà niki noonu comme ni ngeen ko gisee rek voilà dañuy arrière tuuti baa yi nga xam ne mooy passager yi ñu xool Euh, mën a def li nga xam ne rang la comme ni ngeen ko séentoo nii rang la loo xam ne rek euh, dañuy fas yéene rek aussi jël li nga xam ne mooy euh, aussi li nga xam ne mooy client yi ba léegi ñi jël li nga xam ne mooy seen réaction loolu vraiment askan wi nga xam ne yëpp jox nañ leen seen kàddu daal rafetlu nañ bu baax a baax li nga xam ne mooy taxawaayu nguur gi rafetlu bu baax a baax li nga xam ne mooy transport bi nga xam ne teg nañ ko fi ndax pour ñoom ñenn ci ñoom yëpp jàpp nañ ne li nga xam ne mooy berte bi jàppale na leen ngir ñu mën a dem waaw ngir ngir ñu ngir ñu mën a dem ak dikk dem beeg dikk bi yomb na ci ñoom sa gaaw na surtout gain de temps bi nga xam ne ñoom yëkkati wax nañ ko maanaam nee nañ moo gën a gaaw temps bi nga xam ne moom nga doon def diggante Guédiawaye ak ville maanaam di lu gën li ko gën a néew nga koy def loolu nag nekk loo xam ne vraiment euh, askanu Sénégal rafetlu nañ ko c'est di ñaan aussi ay amélioration di di ñaan aussi askan wi téye li nga xam ne mooy euh, seen seen beerte suñu BRT ñun ñëpp ñu téye ko ngir askan bi yëpp mën cee gis seen bopp ci ki noonu bàyyi ñu dugaat ci biir rek xool euh, ñu mën a fexe xool nan naka la ñuy duggee ndax dañuy tikkee nan lañ koy daggee ñan ñoo koy dagg ak nan la ñuy def ba mën a accéder dem ba dugg ci li nga xam ne mooy ci biir BRT bi wala nan la ñuy def ba wàcc li nga xam ne mooy ci biir BRT bi acca ma ñëwaat topp leen ma. Michel Koulidiam chef de secteur. voilà bon procédure ni muy demee c'est assez simple da ngeen di ñëw jënd ticket euh, ça dépend nag fi ngeen ñu dem am na ticket yoo xam ne zonal la am na ticket yoo xam ne toute zone la ticket zonal bi ñoo koy jaayee 400 zonal mooy da nga yem si benn secteur par exemple secteur Petersen Papa Gueye Fall la commencé ba station Liberté 6 ba ki euh, station Liberté 6 moo nekk juste avant pont bi boo jugee foofu yaa xar yàlla dugg nga secteur Grand Médine donc boo jógee Grand Médine dem ba croisement 22. yaa ngi secteur Grand Médine donc foofu tamit benn prix la 400 la bu fekkee da ngay voyagé ci biir Géejawaay géejawaay Géejawaay moo ngi commencé parcelle station parcelle dem ba préfecture Géejawaay donc booy voyagé secteur yooyu sans dem si beneen secteur 400 francs la mais am na beneen tarif bu ñuy woowee tarif toute zone mooy bu 500 bi boobu boo jugee fii si benn secteur pour dugg beneen secteur 500 ngay fay moom. non non non non euh, malheureusement kii du moins heureusement ça laay wax euh, non on n'a pas de complication euh, allant dans parce que euh, affaire yi yomb na utiliser am na foo xam ne dañ fay teg carte am na foo xam ne dañuy teg QR code donc c' est assez intuitif te si am na indication yu wane tamit fii nga na nga teg sa carte fii nga na teg QR code fii pour expliquer les gens effectivement oui am na am na am nañ agents yoo xamante ne dans chaque station ils sont nombreux ils seront la pour épauler la population mooy maanaam ñi nga xam ne mooy euh, li nga xam ne dañoo dund ak handicap tey nan ngeen di dundee ak ñooñu ak fan la ñuy jaar. am na accès PMR accès nii dans chaque station am na accès am na ñaari accès PMR ñun suñu ja suñu suñu jargon la ñuy ne am na euh, quai noor quai sud. quai noor chaque chaque chaque quai daal am na lu ñuy wax accès PMR ñoo xamante ne ñoom lañ ko jagleel. ban heure ak ban heure ngeen di commencé ak ban heure ngeen di wàcc agent yi ak nan déroulement bi nan lay demee échange beeg laa ñoo ngi ci phase mise en service progressive ñoo ngi commencé 6 heures jeexal 21 heures loolu mooy horaire yi. mooy non euh, am na de pause parce que ñun ñun ci ñun ñaari shift la ñu am am na shift matin ak shift soir mais pour la population puisque service continu la on commence de 6 heures pour finir à 21 heures. am na ay moyens pour jënd ticket en ligne ak yooyu noonu am ngeen ko wala. am nañ suñu application mobile bu tudd suñu BRT suñu BRT boo xam ne boo duggee p Store wala App Store ñëpp moo ngi foofu loolu foofu mun nga def abonnement yi facilement sans problème bon euh, application bi c'est assez intuitif parce que foofu tu as la possibilité d'acheter un ticket de recharger sa carte bés bu ñu commencé ubbi phase abonnement yi parce que fii ak semaine prochaine lañ koy commencé bu soobee yàlla laa dañuy permettre ñu def QR code yi pour nit yi imprégné wu ñu xam service bi nu muy demee affaire yooyu noonu mais honnêtement même euh, koo xamante ne euh, comment dire demul jàngi nasaraan mais euh, jàng na école école mun mënti nekk nag mën na ko judee sans problème euh, am na mensuel am na annuel abonnement yi am na euh, mensuel annuel ñaar kese la bu fekkee abonnement mensuel zonal yaa ngi si 17000 toute zone yaa ngi si vingt mille waaw loolu mooy prix abonnement bi mais prix wu support bi euh, dafa am lu ñuy wax carte sans contact bu jar 2000 francs ak billet sans contact bu jar 500 francs non non non carte bi support bi boo xasee ba jënd jeex na yaa ko moom. bu réeree ngay ñëwaat jëlaat mais carte bi boo xasee ba jënd benn yoon abonnement boo subventionné prix abonnement bi kese ngay fay mais carte bi benn yoon nga koy fay. bu réeree na ngay ñëw fekk suñu ndaw yi nekk si agence commerciale yi après ñoom nga topp procédure bi dinañ la octroyer beneen carte. oui oui am na ay xéwal yu bëri parce que euh, honnêtement moo gën a woyof sax ngay ngay fay chaque jour. nga jël abonnement bi di nga am benn prix boo xamante ne prix bu gën a avantage la ngay fay chaque jour moo gën. est-ce que yéen a ngi soraale aussi ak les moyens de trans transfert d'argent yi nga xam ne am na Sénégal pour ñi nga xam ne ñu jënd ticket parce que gis nañ rang bi day gudd suñ demee ba ngoon gars yëpp wàccee Petersen war a ñibbi dina dina yéex par rapport ak li ñu seetlu nii. oui am nañu Wave am nañu Orange Money. donc encore fonctionnel. c'est fonctionnel. c'est fonctionnel dans toutes nos stations c'est fonctionnel donc on a comme comme moyen Wave Orange ak espèce. mais dañuy dugg par rapport ak déroulement bi tey aussi ñi nga xam ne dañuy retourner est am na ñu leen di pour wan leen fii ngeen di jaar pour ñibbi ak nan ngeen di xaajalee ñi nga xam ne ñi ñooy génn pour ñibbi ñi ñooy génn pour dugg noonu leen koy defee. ñun dañoo am système boobu boo xamante ne ça nous permet nous à l'avance da xam bus bi ba heure lay ñëw ñaata temps lay def bu taxawee ak bu naree dem ci euh, beneen station ñaata temps lay def yegg foofu. da par station boo xoolee station yi am na ay écran yoo xamante ne dañuy bind euh, ligne bi turu ligne bi. après après tour ligne bi dina am euh, destination bi destination di nga am euh, temps d'attente bi ngay xaar ak euh, fin bi lan la ak port bu muy taxaw. voilà mais gis nañ aussi bi ñu taxawee fii ci biti jigéen ñoo xam ne dañoo yor ay bagages mais dañ leen ne bagages yi yu bëri mënut a dugg loolu ay règlement la wala lan moo ko wax wala est-ce que jëloo mënoo lañ jël ay motif par rapport à ces choses là parce que am na ñoo xam ne aussi dañ cee bëgg a dugg pour teel a egg loolu yëpp ay règlement la parce que tamit loo gis lépp léppay am limite. mënoo bàyyi nit ki ñëw euh, jël euh, bagage yu bëri jot ay set mbuus yu mag yoo xamante ne yow boo boo toogoon si wetam da ngay déranger wu. bus bi ñu ko defaree c'est pour le confort nit ki au moins na am minimum de confort mënoo dugg si bus de boo xam ne dafa climatisé bus bus boo xamante ne honnêtement euh, c'est fait de de telle sorte nit ki bu duggee dafa nar a nekk à l'aise ba pare ñu ñu ñu nar ko encombré ñu ko andi bagage mais dañ koy limité voilà loolu kese la. loolu moom suñu si avancé leen mais tout dépend si li ngay gis rek c'est en fonction de la situation la ñuy juger y a pas un truc prédéfini boo xam ne nañuy nekk ah mbuus bi lii la wala wala quantité bi boo si yeggee doo dugg non non dañuy xool agent de vente boo xoolee juger que lii ah boo na déranger beneen client automatiquement dina ko interpeller si loolu mais bu fekkee déranger wul kenn dañ koy bàyyi mu jàll. ngi lay gërëm bu baax a ñoo ngi jëf merci beaucoup. kontaan nañ bu baax a baax si liggéey bi nga xam ne euh, moom ngeen nekk di def parce que lii aussi metti na taxaw ak nit koo xam ne nit ku nekk ngeen di tasel ngir waxtaan ak ñoom loolu nag euh, gis nga comme ni ngeen ko gisee nii ñoo ñoom ñoo ngi koy mën a gérer euh, di mën a dund ak moom di mën a jàppale li nga xam ne mooy askan bi ndax ñu mën a génn dem ak dikk loolu nag mu nekk loo xam ne vraiment rafet na lool parce que da xam ne comme ni ñu ko gisee ci ñoom rek mooy lii mooy wane senegal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar te ñi nga xam ne ñiy liggéey fii fii am nañ benn xeetu formation boo xam ne euh, am nañ ko parce que suñ ko amutoon parce que nit ku nekk day am ak ñëw ak rumeur am ñoom je vois que ñoo ngi koy accepté dundu ci comme noonu comme ça rek comme ni ngeen ko gisee nii rafet na trop gis ba léegi ni ngeen gis nii nit ñaa ngi nii génn di dem ba léegi am na ñoo xam ne ñoo ngi retourné da gis nga bi ñuy ni may wax ak yéen nii beneen bi su ngi ne wàcc ay nitam ba pare di ba ba di génn dem gaare ji ki noonu am na beneen boo xam ne day ñëw voilà loolu nag day wane ne vraiment Sénégal BRT bi door na niki tey ci noonu askanu Sénégal ñëpp ñoo ngi ciy gis seen bopp ci war a poor ak ñi nga xam ne taataan nañu seen kaddu ñi leen dox di daje rek ba fan yi ñi fas yéenee ñëwaat xoolaat situation bi ndax am nay évolution wala situation bi nu mu toll noonu la nekk ba léegi jërë ngeen jëf.